xëy na am na lu leen euh, ump ci sa diggante ak Mame Less mais bari na ci loo xam ni wax nga ko sax ba ñu bari loolu euh, nekk histoire bu leen intéressé mhm. franchement ci jaar-jaar mhm. lan nga ñu ci mën a dollil quand ci loolu waaw maa ngi lay sant di la gërëm bu baax di sant di gërëm euh, détail bi daf ma neex parce que li may expliquer mhm. dafa am ay seede yu yu nekk ci plateau bi man dama dem armée libéré arme militaire bu libéré li muy su ñëwee li muy njëkk def mooy dugg ci société de gardiennage yi. Mhm. ma dem ci société sagam méga force phoenix phoenix yëpp jaar naa fa après ma bàyyi amoon sama benn rakku papa boo xam ne dafa nekkoon ci affaire sous-traitance Sonatel yi euh, cablage réseau yi nekk ci bureau yi samp poto ci mbedd yi tiire fil yi dugal courant bi ci euh, dungu téléphone bi ci kër gi su dee entreprise la nga defal ko câblage réseau maintenance ak ñoom seen ma jàng ci lu yàgg bi ma demee ba euh, société boobu seen seen contrat jeex ak Sonatel ma delluwaat ci gardiennage bi tombek environnement FM bi ubbi sama rakk papa boobu yóbbu woon ma ci entreprise boobu moom moo nekkoon comptable ama Sénégal mm-hmm. ama Sénégal ñoo fi indi environnement ah, FM italiens yi bi ñu indee matériel bi. Anne Maris espace résidence jamono yooyu immeuble benn immeuble orange bi rek moo pare woon. quatrième étage fa la rajo bi nekkoon man ñu rek jël ma comme gardien bu war a gardien matériel boobu jóge woon Italie. man la woon ma bokk ci docker yi doon yenn bagages yi. yéegal ko quatrième étage ñu fay ñu. bi ñu yéegalee bagages yi pare man lañ jël comme gardien ma fanaan fa. bi ma fanaanee une semaine. italiens yi ñëw ñu installé rajo bi maa ngi fa woon di leen jàppale ci installation bi biñ ko installé ba pare ñoom ñu dellu Italie ma continuer nekk fa nekk gardien bi gardien rajo boobu environnement FM boobu cité boobu cité bu calme la kenn dëkku fa woon. ma nekk fa nekk fa trois mois. foofu lañ doon les dunes. waa mhm. léegi defe naa espace de résidence la tudd. Mhm. léegi nag trois mois après ci la maam la si ñëw. waaye ko nañ ma ko tudd Mame Less dina fi ñëw ànd ak ay journaliste def dañu war a commencer rajo bi léegi rajo bi da doon émettre rek amul woon kii leen saa mu ubbi rajo bi xool du ma ñemee laal bouton damay xool noonu rek tëjaat leen saa sama xel ni tellement ubbi wax ni wax après nag ma daa ma bàyyi noonu rek ba Mame Less ñëw ma gis ñoom Pape Emé Faye ñoom Abdou Diop gars yi ma daan dégg ci rajo yi ma gis leen ñu ñëw defar commencer defar seen i jingal installation may xool rek un jour rajo bi bi mu dawee ay deux mois trois mois sunu serveur vocal bi moo am problème week-end imaginez serveur vocal bu am problème week li muy perte ci xaalis. technicien tutélaire bi nekku fa woon muy Abdou Diop man maa fa nekkoon ma dem maam les daan guddee wàcc nag ay vingt deux heures vingt trois heures la fa nekk man ko directeur serveur bi de li mu paan nii man mën naa ko defar. mun nga ko defar mun ko munoo foo jànge loolu ma explique ko li ma liggéey ci wàllum affaire u téléphone yii mun ma kaay ma ñëw ñu ubbi fi te serveur bi nekk ma ubbi ko jël sama paak gardien bi ubbi ko defar ko serveur bi am la lan deme mu woo Abdou Diop ni ko booy bii gis naa ni moo gën a fendi kàddu yooyu la moo boobu la moo gën a fendi booy yi fa nekk nañ wut beneen gardien te nga jàngal ko technique parce que kii am na lu mu toogaale. ci la ma Abdou Diop jël jarabaatam boobu di ma former mon may jàng montage production ak di ma jàngal ni ñuy defee journal. ma nekk seefu kii kii bi kii dafa sàcc film bi ndax bi mu ñëwee ci rajo bay taxawal di topp copain mi yooyu noonu. man la maam soo soxor ni ma dénk naa la yoro may jàngal yoro ba ma jàngee ba mokkal après yoro laa doon jàngal mais dafa teel a daw dem sesti mais gis nga journaliste yi ngay dégg muy Babacar Fall muy El Hadj Ndiogu Diène sëf ma ko moom Mbodj mais ñeneen ñi ci des ñëpp sama kanam leen defee stage man maa leen doon monteel seen reportage yi maa leen doon téyel journal midi journal treize heures ba film nii su ma la téyeloon journal douze heures nga ne nga ne kii du Ndoye Bane loolu laa toogaale moo tax man rajo ci wàcc wàllum rajo man lépp laa ciy def te c'est grâce à Mame Less yemul foofu c'est que Mame ñii da leen a jàngal. nekk seen ay professeur mais man su gars yi su demee huit jàngale ji ba ngoon jot ba dix huit ba ñun ñi ñëpp ñu dem këram reer yi ñii suñu reeree ba pare dañuy ñibbi man man fay bàyyi man maa fa daan toog vingt et une heures ba une heure du matin deux heures du matin ak Mame Less pendant deux ans wala trois ans imaginez borom xam-xam bu mel ni Mame Less man awma xarit jamono yooyu awma xarit ànduma kenn bokkuma groupe kenn man Mame Less mooy sama xarit moom laa bokkal group ñooy naanandoo ataay di añandoo di reerandoo pendant trois ans moo taxoon ñi mënu yoroon CESTI suñu jàngaan ba pare ba war a def seen euh, kii yooyu ñuy def nu mu tuddati. grande enquête grande enquête maam les ci man la daan yebal journaliste yi pour sama reportage yi may def ci rajo yi ma jàppale leen ci seen grande enquête yi journaliste yu bari ñu ngi ci presse bi ñoo xam seen grande enquête man maa leen doon jàppale ba ñu ba ñu dem c'est grâce à maam les léegi nag li muy def ci yow mooy dignité. day def ci yow jo doylu gis nga affaire per yooyu ñuy wax. dama fekke toog ba taay mu koy tere gaa yi. nekk naa ci rajo borom rajo ba ni maam lees personnel bi dañoo bari wàññi leen maa maam lees ñu ànd di ñibbi ma dugg ci otoom ñu ànd dem këram añ ba pare mu dugg biroom defar liste bi ñu mu war a wàññi mais maam lees turam la def ca kaw moom mooy directeur bi moom la loolu man maa ko dund ak moom. maa ngi koy wax yore léegi bi ñu dugg xamatuma nag kan la ci journaliste yi am na ci koo xam ne da koo jàngal sisti maa ngi moom ñu ànd di ñibbi mu une heure treize heures jot revue de presse jot muy def revue de presse comme ni ñu koy defee léegi di ko théâtre théâtraliser nii nii di ko mel ni kuy comédie mu def demi tour maanaam moom dem dàq waa ji man quoi directeur lu tax nga dàq ko man ma looy kii maa koy jàngal sisti mais du lii muy def ci rajo bi noonu laa ko jàngal gars ci jàppaat mu jëlaat ko toog naa ñu tàgge nit ku deewul ci rajo bi damay bañ a tudd kooku ñu tàgg kooku sax dee na léegi mu ñu tàgge ko kooku noonu su ci ñoom yoru ñuy jàppul woon ak gars yi dañ koy dàq bugul woon ku daan kuy joxe xibaar bu wérul soo joxee xibaar bu wérul ci rajoom dangay am problème mais tout le temps nag journaliste yi dañoo xawoon dañu ma doon fii rek maam lees xam nga ñoom man dama leen a fekk ak maam lees ba pare nangu maam lees ci ñoom. ñoom dañ ma doon dem naan maam lees waaw Ndoye Bane ay bêtises rek lay wax ci rajo bi xew waxi militaire lay wax nangam parce que temps yooyu maa ngi doon def ay animation xaw ma lu may wax man defe naa ni animation may may dédicace di ko may courant nii di ko may pap di ko may di ko may dama naan dem suñu koñ bind listu waa koñ ba yëpp. tiim teg musique rek di ko may diw di ko may diw di ko may diw maam les ni ma di ko may diw nga fi fekk yow loo fi indi <laughs> question bu garaaw yow looy indi mhm. yow di ko may diw nga indi dara il faut nga di dara waaw mu nekk sa cachet ci la corona bi euh, kii xew mhm. choléra mhm. ma dem defi reportage choléra ci garage car rapide yi borom emprunté bi man ko yow xam nga choléra ci loxo yi lay jógee ma posé ko question ni ko yow kañ nga gëj a sangu gi nga question boobu ni mu jàkkaarloog nit naan ko kañ nga gëj a sangu man jànguma journalisme xaw ma nu ñuy laaje man li ma santi rek laa koy laaj mun ma su ma wàccee laay sangu man comprendre ma su ma wàccee pour man su wàccee léegi nii lay sangu ndekete moom su xëyee lundi samedi lay wàcc samedi lay sangu te moom ci lay we non moom moom ma expliqué loolu ci enregistrement bi bi ma ko tegee ci rajo bi affaire bi nag choqué nit ñi maam les dafa jëloon reportage boobu traduire ko en français et en anglais jàllee ko BBC. léegi nag loolu moo indi sama émission thème de la semaine moom moom ma joxoon tur bi ni ma tuddee ko thème de la semaine ma ciy dem noonu di ci dem noonu ñoom ñoom Rame Rame Ndiaye ak ñoom Yoro ndooy lu ne lay wax ci rajo mun leen bàyyi leen ndooy ndax ndooy baan lii muy def nii émission yi muy def nii par samedi fii ak 10 ans rajo yu bari moom la ñuy defi ku ko defiwul kenn du la déglu ndax di teg euh, euh, musique di maye dédicace day xeewi leneen mooy xew. da doon wax sax mooy bi daan expliqué bàyyi leen Ndoye Bane Ndoye Bane vedette la loolee loo leen daan loolee leen daan wax mel ni ku ma xaw a yëkkati teg ma ci kaw gaa yi mais booba mi ngi may defar de am na un jour benn kilifa may ma cinq cent mille parce que dañoo def émission kilifa gi ni ma jëlal clé bi euh, utal ma clé nga defal ma ci émission bi ma defal ko ci émission bi sonn ci bay bëgg a dee booba la ma daan fayee ko bariwul ma dab booba nag ba ma yóbbu clé bi yëpp bi di defar booba maa ngi ci doon yaakaar dara nag wax dëgg xam nga da wax dëgg rek mais bi ma ñetti wecci escalier yi wàcc ci oto bi dem dabi kilifa googu jox ko clé bi waa ji may mam cinq cent mille waajoo jamono daf bari xaalis ma yéegaat ci escalier yi di yéeg dajeeg rame ak maam lees ñun moo lay daw ni mën leen kii fii ji invité moo may lii mun ñu raaj moom lu tax mu may la ko ak lan moo tax mu la koy may question bi jaxase ma. nekkoon na candidat présidentiel waaw. ma def demi tour fekk ko ci oto bi delloo ko ni ko maam les dañu koy tere <laughs> delloo ko xaalis c'est que yooyu yëpp dañ ko dund ak moom dund ko moom te bi ma demee ba nga xam ne bi nga sawaay maam lees sam papa jur rek la ko ëppalee ci man ñii xam nañ ci dara ma takk soxna moom moo ma takkali soxna ma jël sama jabar doomu maam lees mooy mooy sama njëkkee soxna xam nga ci loolu sama jabar soxna doom ji jigéen ji mu njëkk am su doon góor maam lees laa koy tuddee jigéen la ma tuddee ko doomu maam taaw taawu ba léegi nii kooku noonu ma nga ci kër ga magum jëm sixième lay def te maam lees ni ma la xamee nii noonu lañ xamante fekk ma ci gardien la ma fekke yóbbu ma fay di maam lees moo formé maire bii di wax lépp lu ma xam maanaam wax nii mu jub su mënee amee c'est grâce à maam lees te daf ma doon déglu tout le temps. mais livre yooyu nga wax livre ya nga doon jox yëpp soo demee ci biirum ba laajal yoro ma nga fa tege ay livre ay kaset maanaam ni mu déggee français noonu la déggee wolof maam suy def journal journal lu midi su ko daan def yow doo bëgg journal bi jeex ndax baat bi baat bi macha allah. dafa dafa dafa dafa neexoon. Mhm. dégg wolof su dee def journal wolof la même chose soo gisee les débats politiques là yi am les dimanches seen mhm. générique yi ñu ci bari ci maam les lañ jëlee son yooyu ay Ali Fakka Touré moom la daan jël. gisoo soo est-ce que bu bi bi nekk RFM bu Babacar Fall bi est-ce son boobu do son Ali Farka Touré yooyu yëpp soo demee da ngay fekk mu mu mu mu yor ko ci këram rajo boo ko jox habillage ba moo koy defaral boppam moo naa la journal bi journal bi générique bi lii lay doon journal wolof bi générique bi lii lay doon jëngali lii lay doon débat politique yi nga xam ne mooy débat wolof li li seen générique tamit moom moo koy créer boppam indi ko jox leen donc ku xam ku xam mbirum taskat xibaar moo tax taskat xibaar yi Sénégal ku ci tappale man xam naa <laughs> parce que man journaliste yi dañ maa formé man formé wuñ ma sisti néegu maam lees bu ndaw boobu kaa néegam bu ndaw boobu fa la ma téyee di ma defar ba ma ne cocc voilà foofu nag moom et puis nag ñun nag war na lii am na loo xam ne war nañu wax dëgg yàlla ku fayee ko weeru dee war ngaa yóbbul maam le maam tàkki ne lu mu jëndee wax dëgg yàlla cere ak yooyu parce que chaque vendredi journaliste yi mu daan jàngal yëpp xaaj bi ñëpp këram leen daan reere cere pendant des années cere Tata Kine moom amul fenn ci àdduna donc lii la dund mën nañ fii toog di la wax ay exemple yu baree baree bare bëri moo taxit journaliste bu baax boo gis ci dëkk bi fii nii ci dëkk bi jaar nga ci Maam Lees soo jaarul ci Maam Lees it kala defar jaar na ci Maam Lees wala nga jaar fu Maam Lees defar kër gu Maam Lees defar lu wér la jàppalekat yi ci dëkk bi journaliste yi ñu ci ba dama koy wax samay wax neexul fii commercant yi dafay bari li dafa am ñoo xam ne ay journaliste lañu am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne c'est des commerçants ñoo yàq seen métier mi pam ngañ te mais ñimuwu leen ko wax xam nga yàq nañu liggéey bi ba nga xam ne bi ma ne keroog ma toog ba ak ma ne journalisme dee na mais heureusement ba defar na fi ñoo xam ne ñu am dignité lañu defar na ay kër yu mel ni Walfadjri par exemple jaar nga fa Kurani jaar fa ma Yoro Mangara jaar Environ FM jaar ki sama ndaw soo doo jabar doom jooju nga xam ne mu laa tuddee doomu maam lees bañ koy ngénte Kouraani Diarra mii ak Souleymane Niang ak ko ñuy wax euh, Lamine Diallo ñoo cotiser ñu ngénte cotiser laa wax de parce que dañoo toogoon ay 4 mois trois mois sans salaire yorumoon lu ma ngénte ñoom ñi ñoo daje lañ yor ñu ngénte euh, Ndeye Fatou mu tuddi ko Mame Less boobu Mame Less nekkatul woon sama directeur euh, nekkoon na environnement FM jóge fa Souleymane ñaa ñëw ak Océan waaw Océan Océan waaw Souleymane naa ñëw ak ak Coran yi ñu ñu ñu yor Coran yi nii nekk na sama sama sama patron pendant pendant des années ak ak Souleymane donc daal jikko ji nga xam ne moom la Mame Less def ci ñun ñii dañoo ñëw yeggale ko mhm. Souleymane ñaa ni mu mel ci Maamles la ko jëlee. Hmm. kii ni mu mel ci Maamles la ko jëlee kii la même chose. d'accord merci beaucoup.